nekkee si jàngatu logique politique la ñu topp loolu mooy li ñu nekk ñun jàngat bi ñu si mën a am. Mhm. mais si du wàllum lii dafa jéggi politique que politique mën na nekk interne mais li nga xam ne c'est externe c'est international c'est de la diplomatie ni ñu nekk di doxalee tàmm ñu ko gisee ni si euh, njiitu réew bu falu njiitu réew bu falu dafa doon am giir bu muy toog gere les affaires internes ba ba dooru jug dem wuti li nga xam ne mooy li international léegi nag ñii dañu doon woote communauté. tey Sénégal boo xoolee ni mu daan doxalee par rapport ak kii xam nga ni tout dernièrement l' aspect ouest africain dafa am ay crises yoo xam ne Sénégal mënu si xuus dafa fragiliser Sénégal tant sur le plan économique que sur le plan diplomatie. Mhm. donc ñoom bu ñu ñëwee ba yàlla def ni ko ñu toog boo xoolee premier ñoom seen première nomination. première nomination après premier ministre lan moo si topp ministre de l' intégration et des affaires étrangères donc loolu dafa am significatif am signification ba pare ñu tombe si benn période de crise ouest africaine mhm. Guinée nekk si crise Côte d'Ivoire nekk si crise Burkina Faso nekk si crise Mali nekk si crise donc tënk loolu yëpp mhm. ba pare ñu soulevé ay question de souveraineté tey Mali souveraineté moom lay xëccu euh, Burkina Faso souveraineté moom lay xëccu gis nañ li xew Niger donc question souveraineté bi ñëw tegu tey si kii léegi nag mu am politique bu bees boo xam ne ñoom am na lenn loo xam ne war nañ ko dox wax nañ ko indi espoir si les populations les populations locales et les mm-hmm. populations extérieures tey africains yëpp dañu jàpp ni que Sénégal mën na tirer l'Afrique de l'Ouest par rapport ak li ñuy wax démocratie ñun ban démocratie lañ tàmm wax démocratie bi ñuy xëcc ni fan lañ ko jëlee li si ëpp si occidentaux yi. mais tey yi dëkk yi nga xam ne tey ñoo am difficulté lu mel ni Burkina Faso lu mel ni Mali lu mel ni Niger dañu beddi France te France mm. boobu moo doon imposer démocratie te boo xoolee démocratie bi Afrique am. ñi si ëpp après colonia colonisation bi la am ah, te après colonisation bi ñi toog si colonisation bi yëpp boo xoolee ñi am durée bi gën a yàgg si président yëpp ay anciens militaires lañ ci ay putsch putsch la ñu toog mhm. putsch yooyu la ñu continuer di woote démocratie seen dëkk et donc ñii ñëw tey bu ñu ñëwee à part militaires yooyu les autres yi nga xam ne ils ont duré au pouvoir mooy ñi nga xam ne ils étaient un peu euh, par la France. effectivement Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny Sénégal Senghor. Euh, effectivement ak euh, Omar Bongo. Mhm. donc yooyu aussi ça signifie cette relation bi nga xam ne euh, père mère wala mère enfant bi nga xam ne diggante France ak ak les pays africains. donc relation boobu tey boo xoolee fondamentalement même France su lay imposer démocratie day fekk moom mu appuyer la. Mhm. bu nekkee toppoo si démocratie moom bi mu la ubbil yoon bi mu la tracé rek da indi da am ay man on sabote la politique de ton pays intérieur. même bu de semblable démocratie moo fay nekk. Mm. xoolal nekk di xew Togo. donc bu ñu jàppee ni que ñii au moins am na lenn loo xam ne mën nañ leen si jox bonne fois mooy ni que bi ñuy ñëw ànduñu woon ak France. Mm-hmm. te population africaine bi dañu laajte rupture moo tax symbole ñoom Ousmane Sonko. nekk ay symbole yoo xam ne sur le plan ouest africain sur le plan africain dañ leen di gëm. mais est la seule voie. la seule voix suffit parce que aussi souvent nit ki pour nga mën koo jiitee foog am loo ko ëppalee je parle pas seulement de la démocratie wala ci kàddu goo xam ne day jug il faut nga nekk benn puissance boo xam ne xëy na ëllëg mën na làqatu sa ginnaaw pays yi ngay wax ginnaaw Russie lañ làqatu jamono ji. waaw léegi nag euh, si wàllum démocratie si wàllum diplomatie. Mhm. la diplomatie est très sourdine. Euh, le fait mi que ñu jug dem Mauritanie. Mhm. jóge Mauritanie dem Guinée Bissau jóge Guinée Bissau dem Côte d'Ivoire jóge Côte d'Ivoire dem euh, dem Nigéria dem ki am na leen lu ñu nekk ñoom di togg loo xam ne man ak yow ñu ko xam. loolu c'est c'est wala c'est le parti Pastef. non aujourd'hui mënuñu dissocier les deux. non c'est dissociable. ok c'est dissociable le parti Pastef se limite au Sénégal. sa vie politique se limite au Sénégal. même si am na ay ay ay. ramification exactement ramification internationale. Mm. c'est tout à fait logique Pastef yàggul mu juddoo. mais symbole li muy symboliser moo tax gars yi bàyyi xel si Pastef mais nañu jël Pastef mhm. inter euh, externaliser ko ñu xool li nga xam ne tey mooy li nga xam ne yow du Anta man Souleymane Diallo ak les citoyens lambda lan moo ñuy tënk mooy état wu Sénégal par rapport ak Afrique lan lañ nekk di joxe. Mhm. tey Sénégal mu ngi susciter benn espoir man li ma jàpp si jàngat bi may def mooy ni que au delà visite yi ñu ngi dem visite de bon voisinage coopération bilatérale am na lenn lu ñu nekk di togg di ko waxe ak réew yi par rapport ak Afrique. Afrique loo xam ne yow xamoo ko man xaw ko te loolu ñoom il suffit que. sa expérience am na lu la war a war a jëm. les États-Unis d'Afrique par exemple am na les pères bëggoon nañ ko antuwul panafricanisme négritude am ñoo xam ne bàyyi nañ seen bakkan tey jii ni cette nouvelle génération Ousmane Sonko am na lu muy lu muy signifié est-ce que mën na porter sa sa combat ba am ci euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ndam. non mënul nekk capitaine bi. mais mën na nekk un leader. d'accord d'accord Euh, cinq ans six ans njëkk la si ëttu njiitu kooku doo ñëw di ko ne da nga koy won yoon bi muy aw. Mhm. mais par contre war nga mën a ñëw ne kaay lañ ñu boole ñun ñëpp ñu toog waxtaan e jàpp naa ni. man jàpp naa ni si sama jàngat loolu lañ nekk di jox si ay fan yu néew si ay weer yu néew ñoom fu ñu daje dañu fexe su nekkee CEDEAO la CEDEAO daanaka dafa jaxasoo. boo moytul ñu ngi toggaat CEDEAO ñu ngi redéfiniraat politiku CEDEAO te loolu ñu ñëw toog di ko wax ak sénégalais yi. mais est-ce que du heurté wu ci résistance su euh, puissance yu mag yi la France par exemple maa ngi ko sànq yàgg nañu sàkkal pexe ay njiit yoo xam ne loolu lañu doon woote Kadhafi mooy exemple bi ci bi ci gën a fës euh, Thomas Sankara à un donné loolu la doon jaay dañ ko sàkkal pexe xëy na nag les politiques ont changé ak les aussi voilà dinañ ko ci bàyyi ak teyu Euh, France tollatul nu muy toll et pour exemple laa la jox euh, diplomatie dafa sew dafa kii. Mhm. si France rek li ñu gis ambassadeur bu ñu tëj si réew nee ko demal mu toog ba di naan ndoxu piscine Nigéria Niger. Niger. Mhm. seen ambassadeur bi ñu ko dàqee ñuy résister si ndoxu piscine la mujjee naan. ndax lan mënutul woon génn ndaxte France tey France mënutul lu bëri Afrique. d'accord ah. France mënutul lu bari Afrique. dooleem dafa wàññeeku Afrique. France bu mënoon lu bëri Afrique li ko dal Niger du ko dal. li ko dal Burkina Faso du ko dal. y a boo xam ne dimbali les états yi France Russie loolu Russie du dugg ci politique africaine Russie intérêt intérêt militaire la.